fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba man a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma lu bokk ci bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma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 woo yàlla nañu fekk ñu doon dëgg-dëgg jullit dëgg-dëgg jullit nag la koy taxadoon yàlla mi yónni woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale loo gannaaw bu nit ki seedee amuk suñu boroom gi ak kennam ga gëm nañu yonent bi ña ko jiite woon ñëpp ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ay ndawam lañu ak yami àndal yëpp yi gëm di àndal am na ci ay melokaan yu nit kii mel yoo xam ne dana dox digganteem ak doon dëgg-dëggi ab jullit yal nañu ci yàlla musal yooyee daf ca bokk jikko ji ñuy wax rëy rëy rëy nag kum ne ci moom fu mu toll day yëkkati ay wagg fum mu toll day bëgg kuy wax ci moom fum tollu day bëgg ku taseeg moom wàcc moom mu yéeg yàlla noonu ci yàlla am na ñu fi jaaroon ca jiitunu bu yàgga yàgga yàgga yàgg toll woon fu kawe seen digganteeg seen boroom wéetal ko nangu koo jaamu di wéy ci ndigalam te musu leen tere waaye bis ba leen rëy ne yoxoos ca la ñuy wàcc di wàcc di wàcc ba ca ndëtt la te dutuñu yéeg mukk iblis a ngi nii suñu boroom di ko nettali ci alxuraan jaarale ko ci làmmiñu ku tedd ka sallallahu alayhi wa nee na ba ko bindé mu mel nam ko bëggee ci coobareem ak katanam daawoo ña fa ne woon ñëpp ne len ki moy kam len doon wax naan daf ko tan ba ko yóbbu ci kaw suuf mu nekkal ko fa wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fi ardi xalifa muy nit mu ne kon bok bala mo dem sargal len ko sargal len ko jooju nak am ko taxaw fe bank ay yoxom lànk kandare lako bank lo ay yoxom reuy moko ko ndax da koo defut am nawle wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lako te def na ñom reuy la aba wastakbar ba yàlla ne ko lu la tee sujjóot ni ko ñëpp defe mooy sargal kii ma ne nañ ko sargal mu yëkkati wagg ya ne xanaa xamoo ne man maa ko gën ndax ñu sax luñ jóge bukkuñu cosaan duma masam duma màppandoom qaala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin am na ñu wax ne xalaqtani min nuur la bëggoon a wax waaye nañ ko waxee ni ko alxuraan waxee rek ci ci ban nga ko bind nga man ma nga bind ma ci moom mu bind ko ci sawara moom iblis yàlla ne ko nag bis ni danga ma abal dootoo xand fii sax far la ko teg réy moo ko dugg gis na boppam yëg na boppam moo tax léeg nga dégg ku naan man damaa nangoo liggéey ndax damaa gëm sama bopp déedéet kenn du gëm boppam nit ki day xam boppam léeg-léeg mu jëflanteek aw nit nag bañ defee ne kii dafa gëm boppam te fekk déedéet daa xam boppam xaw a bëgg boppam ku xam boppam dëgg dëgg day xam ne jaamu bi yàlla su boobaa kum gis dana la def am nawle day xam ne yéen ñëpp ay mbindee fi suñu borom ngeen ay jàmm yàlla ngeen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxuraan ne ba iblis defee loolu la ko yàlla ne abal ma génnal fii dootoo fi nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne du dugg aljanna de ñëpp ne tekk ku ne defe ne diw lay wax mu ne ku rëy na ci moom lu tuuti tuuti doonte daa toll ne fepp sal guuf it du ko dugaale aljanna te foofa yaari kër rek fa am aljanna fa nekk ak geneen kër gi nga xam yàlla ñu ci yàlla musal am ku ne tonet ca wax ja ne ko yaa rasulallah nit ku sol mbubb mu set wicc ka ko ñawal mën a ñaw mu sol la mbubb may àndal lépp boole ci ay dal yoo xam ne ku ko xool xoolaat mbaa loolu ca mu ne ko déedéet loolu bokkut ak rëy yàlla jamil la mooy joxe ab nu way mel rek bañ ci ko xool ndax bu rafetaay yàlla ko ko jox te yàlla moom ku bëgg rafet la kon wéy lañ ci noonu ña ko doon def nañ ca wéy waaye nag rëy gi muy waxtaane moom mooy saa bu di wax ak nit ñi ba dëgg jib bokkut ak nam ko waxe woon wala nam ko xame woon du nangoo wàññiku mukk ki réy du nangoo wàññiku day téye fam téye ndax la ko teg mooy daa xeeb ñépp ci seen xam-xam xeeb ñëpp seenum xel sax fa moo tax yàlla ne subhanahu wa taala kuy rëy rëylu ku nekk su ko yëgee ak su ko yëgul yàlla fab na tamponeem ba nga xam ne bu ko tamponee du ko dindi mukk ci ne kii moom yàq alku bu ko xasse ba tamponné kooka alko na ba faw moy kuy reuy reuy ba far reuy gané ko dëkk ak mom fum jëm andak mom moom kadalika yatbau llahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na ne sugg foo rek foo ko xool xoolaat ko yàlla nee na loola njiit laa yama maanaam mbubb mu ndaw mi muy jiital bu dee bu doon ci nañ ko mën a dégg noonu dañuy jiital mbubb teg ca mbubb mu mag mbubb mi jiital loola la noonu la mel waaye ma muy teg ci kaw nag mooy kibriya toll nam toll te du mos a wàññi ko mukk nee na ku ku jéem a xëcceegu moom ñaar yooyu nag di ko dir mbagg ci njiit lay wala mbubb mu mag di woggate ay woggante ay dara suñ ci suñ jamono nee na dana ko mbugal mbugal mu metti yal ñu ci mu musal moo tax nit ki lu mu gis-gis boppam su xoolee fa mu bàyyi ko ak fa muy mujj rek dana xam ne nit lu dara jaar-jaar bu gàtt la boo xam ne jërut di mel nenn luy koy indil ay jafe-jafe ëllëg ndax bu ñu demee ci alxuraan fekk ne jaam bi daa war a xam boppam rek su xamee boppam rek dana xam ne as njaam la ci jaam yu bari yu yàlla bind mi ngi koy wax ne qutila al insaanu maa akfarahu min ayi cheyin خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره نميت خول في مبايك رك نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى هكاي نينا نك mu ne ko cëpp du man dara ñu yor ko mu toog ba ab diggante muy jéem a doxal boppam li ñuy xamee ne yàlla moom kenn raxu ko ci lenn ci jaamam ñi gone gi li muy jëkk a jéem a def mooy raam kenn moo ko ci yabal ku ko rabal ci ku ko yabal ci raam seen soxla la am ba tax mu war a jóge fii di jóge fii jëmfale yàlla mu teg ca jéem a toog te kenn yabalu ko ci toog xam nay dem mënu ca dëkk dem ak dikk lañuy def muy jéem a toog léeg-léeg ñu di ko wuufal pot wala ngeganaay ba yàgg mu mën a toog lu mu cay teg kenn moo ko ca yabal jékki-jékki bëgg a jóg ñokkat di dox ku ko ca yabal coobar yàlla nopp ci moom ba ba muy ñàlli nag nga xam ne ku ko dàq doo ko jot ba ba muy demaat ba yàgg mu tolluwaat foofee ci ak màggat léeg mu laaj ba xam añ naam déet wala reer na ba mu doonee gone gu ndaw gi may wax ni nga xam ne ci yéem a raam ak toog la toll jooy moo koy xamal nit ñu xam ne xiif na waaye kay moom mën naa woote diggante boobu mu tollee foofee ak foofee diggante bu gàtt la ci li àdduna doxagul ak li àdduna nar a nekkaat ci kanam nee su ko defee nag yàlla ñëw ak coobareem mu ne cell yëngal yëngal mu ne pat ñu yóbbu sutural ko suñu boroom ne su fa toogee ba mu sopp ko yit it thumma ida shaa ansha mu dekkalaat ko ni muy dekkale ñax mi bu tawee kenn ku ne di pulet pulet yi moo tax wolof doon léeb ne ku sam taw ba réer rek négal ba mu taw bu tawee rek da xam fa nga sa fa nga defoon taw yàllaa la yàllaa ko fay wuutu xamut tooba ma daa jaaxaan xamut dafa tëdd ak fet xamut dafa sóonu waaye yàlla moom wóolu dénk ko ko yàlla ko cay wuutu seet na muy mu taxawale ko noonu sotti ci am ndox kon boog aayaat yi alxuraan yu bari yuy wane ñàkk solo nit fa mu ak fanam mu gàtt ak xéewal yi may nar a amee ëllëg wala mbugal ma may nar a amee ëllëg lépp yàlla noppi na ci kon nit war nay xoolal boppam léeg-léeg da ngay dégg nag koo xam ne dañ koy takkal lu nekk bari na ci loo xam ne wóor na ko ne munu ko xamu ko te du kooka waaye day tax mu ne càll rek léeg-léeg sax mu génne di jox ko koy wax bëgg mu gën a waxaat di ko làbb te xamut ne kooka dund na lu yàgg mosu koo gis ñoom ñaar kenn mën na fee bàyyi ko lu yàgg te doo gis doo gis sa morom kon boobu rëy mooy diir mbagg sunu borom rek yàlla nañu ci yàlla musal sëriñ bi daf ko tënk ci yaari bayit ëpp na ko sax waaye yaari bayit yi ku ko jàpp da nga jàpp lu dëgër dafa ñoo wax rëy mooy lal noo koy xàmmee soo fekkee kaaf baa ak raa maase guñ ko soo bëggee wax rëy lu mu doon da ngay maas kaaf gi ci suuf maas baa gi maas kak néeg raaga nag mën naa doon lu nekk mën naa doon masque ak lonk mën naa doon masque ak yat mën naa doon masque suuf ndax boo ne lii mooy rëy te kaw nga koy maas masque ak lonk soo ne gis naa ko masque ak yat nga koy maas ca kaw soo ne daa dox jëm ci rëy masque suuf nga koy maas ak yat moo tax mu ne xaqiqatul kibri bi kasril kaafi wa bi sukunil baa bi laa xilaafi qul rafu nafsin maa katmi lxaqi maa taadumin wa xamti lxalqi suñ la laajee kibr mooy la neel mooy koo xam ne fu mu toll mi ngi yëkkati ay wagg moom ci boppam wala suñ ko ko dee yëkkatile du wàcce mukk saa bu dëgg feeñee mu teg tànkam du nangoo jiw mukk ne koy dimbali duñ nangu mu juum mukk dañ dem ba waxal ko loo xam sax yàlla wax ko ci kenn ci nit ñi diw du juum su kurul juum nag ñun toppaloo wuñ ko kurul juum nañ ko nekk ba mu nit ni noonu muy yaar yëkkati ay wagg wala ñu yëkkati ay wagg mu ne pat fu dëgg feeñe mu xam ne ñàkk na mu teg ca tànkam mu jaral ko lu nekk ña koy jàppale teg seen tànk mu jaral leen lu nekk boole ko fu mu fekk gaaña dana leen wan melokaanu duma seen moroom duma seen màpparlo foofa nag ku fa te jógu fa bu ko yëgeeg bu ko yëgut ak bu ko nit ñi yëgeeg bu ñu ko yëgut xeeb na ñëpp tegut kenn fenn te ñëpp ja ku ne mën na caa dugg nag mën na caa doxo doxo doxa ba gis boppam ne weesu na jaamu yàlla weesu na moom jaamu yàlla moom jëxam bi moom dutu ko dutu ko sukkal kenn ci suuf moom di ko di ko di si ak bakkanam bi wala yaasu la doon na nettali ne nit ki bu ñu ko yëkkatee na bañ jóg ba jeex la sampi tànkam ne wàcce leen ma fee su ko defee bu ñu koy wàcce mu dem yoonam waaye ne ne su ne pat di rëy rëylu bu ñu ko yoonoo ba mu jax takk ni si tuuti yente ngi nii yoo xam dara mun ca yàgg nee na aw xel mënut a yàgg ku daw xel xamal ne fa mu jóge soriwut wala fa jëm soriwut ree su ko yendoo jooy mu ne su ko yendoo waaye ab yan moo ca raw neena suñé pat bañ fa ko bam jax tak ni tuti ñu tokki suñ koy wàcce duñ ko wàcce way dañ koy sanni su boba amna dal daal ko dal muy da muy daanu amna yenen dal yu ci mëna a muy dam ak dee nam ko misale moy dañ naan ko yow ku bax nga mu ne weesu naa foofu moom mu na ñu ne ko xana kon yow ci awliya illahi nga bok mu ne ba ram bamay ram dafa tollu ñu ne ko xanaa kon yow xaw su nga wala xóot bu nga luñ ko ci wax mu ne waaye suñu wax bu yàgg du moroomam ñooñee ñuy tudd di ko tudd ñu ne ko xanaa kon yow ab yonent nga mu ne jàllal ñu ne ko xanaa kon yow malaayika nga mu ne malaax kat nit du moroomam ndax ñu nit ñi dañ koy yónni ku fa sës xanaa kon ki nga xam ne kay ñemewu koo tudd moom leen ñi koy ñi wax ak moom ñi muñ koo bokkaleek moom dara ndax xam nañ ko xam nañ ne du moom mu ne kan la xamatul kenn ku dul boppam ñu ne ko subhanahu wa da lañ bëggoon a wax ki nga xam ne waxdahu huwa waxdahu la sharika la mu ne ñi ma koy jiñ de mu ne moom ña ngi ko koy jiñ neena ana daanel gu métti ga moy dañ koy dañ nan diw dof na legi rek daal di noppi ci mom yàlla nu yàlla musal ci reey ak reey reey do budé ala la tax ki reey reey na xalam dem ci qarun bañ nan ya layta lana misla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin azim akande xon ñom ñi melni qarun way ci alal ju bari waroom xam-xam ya tax xam fi alal di jóge fi muy jëm yàlla koy joxe moo koy xañe waylakum sawabullah waylakum sawabullahi xayrun liman amana wa amila salihan wala yulaqaa illa sabirun wa qaala alladina utul ilm xaaroon nu mujj ak àllam fa xasafna bihi wa bidaarihi al ard yàlla daa xëy rek wax suuf si ne ko wan na ko wan nal xaaroon ak alalam jëpp alal joo xam ne demoon na ba àgg ci ay chef dañ koy seuf ci ay chef ka mu di ko yóbbu caabi yu bari bu don su bu don suñu jamono dañ koy tek ci burwet wala lu ko ëpp doole waye borom xam-xam it dana dem ba reuy lool ci xam xam te mo ne bañ bañ koy jàngal xam-xam lañ ko waxon moy kuy jang xam-xam da ngay tok ci suuf bank say tank jox cir lool ke lay jangal ba jappé ko sax sa wayjur jur wala ka nga gën a fonk ci nit soo bëggee am ci lim yor waaye rek koo xam ne doole adduna lay wax tam man ko firawna rek firawna nga xam ne dem na ba ci gën a situci koy mu ne amantu annahu laa ilaha waaye rek jàpp ko illa alladi mu ne illa alladi amanat bihi banu israil kooku kan la xaar ko na wut tudd yàlla banu israil mooy sayidna Moussa yàlla la doon wooteel waaye rëy ga tax na nangu tudd yàlla ñu ko nag léegi weesu na ala ci tout temps ala na waxad asayta qablu kunta minal mufsidin waye yàlla ne ko dañ la fi bàyyi nak da doon exemple misal ci képp koo xam ne ki réy da koo dugg ak lu mën a yor ñuy ñëw ëllëg danañ gis sa jëmm ñu xam ne kii mooy kooka fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya wa inna kathiran min annaasi an ayatina la gaafiluun يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين